Glory, glory Man United. Samedi 16h30, premier match de la saison Manchester United euh, contre Crystal Palace mu nekk première journée wu Manchester United parce que moom dañ ko exempté loon euh, lors de la première journée de Premier League parce que da doon jouer Ligue Europa bi donc ñu mayoon ko une semaine de repos de plus que les autres équipes léegi nag euh, loolu taxoon nag Manchester joué woon semaine bu njëkk bi ci Premier League bi donc moo war a démarrer samedi moom ak euh, Crystal Palace. léegi nag euh, jàngat yi ñu defoon ci début de saison bi nag bari na dañuy commencé ci wàllum staff beeg joueurs yeeg yooyu confiance bi nga xam ne affiché nañ ko parce que ñoom d'après li ñu gis ci réseaux sociaux yi ñoom wane nañ ne ils sont très confiants ils sont sereins ambiance bu baax moo am ci vestiaire bi joueurs yi ils sont en forme et ils ont hâte retrouver les terrains pour wane seen bopp. donc euh, mais nag bu ñu demee ci côté fans yi moom c'est le contraire frustration bu bëree bëri bëri moo fa am. ndax euh, fans yi dañu jàpp ne dañ doon xaar mercato bu yaatu mercato bu xamante ni dañuy am dañuy jënd joueurs yu bari donc doon xaar minimum cinq joueurs wala bu critiqué ba critique sax ñetti joueurs donte man moom personnellement gëmmoo woon ne daañu am joueurs yu bari dama gëmoon ne sax trois jour yi miracle lay doon ndax gis nañ équipe bi nu muy doxee direction bi nu muy doxee at yi romb yëpp euh, moo taxoon xaaruñu woon recrue yu bari bari mais doon nañ xaar nag minimum doon nañ xaar ñaar. wala sax ñetti recrue ndax gis nañ ne ñëpp wax nañ consultant yu mag yëpp wax nañ ne Mansour soxla woon ay recrue consultant yu bari wax nañ ko surtout suñu anciens joueurs yi nga xam ne tey ay consultant yu mag lañ ku ci mel ni ay Paul Scholes ay Rio na euh, coach Pays de Galles bi Ryan Giggs donc ñu bëree bari wax nañ ko même sax Gary Neville mi nga xam ne xamul gat aussi wax na ko donc mu nekkoon loo xamante ni dañ ko waroon def mais dañu gis ne Mansour mercato bi commencé ba léegi benn jour lañu recruté muy Van de Beek dañ ci ñëwaat léegi nag bu ñu xoolee loolu noonu yëpp nag ñun ci début de saison bi jàngat bi ñuy def mooy que problème mën na am li koy waral bu ci njëkk mooy effectif boo xamante ni du effectif bu kaar nii amuloo jour yu baree bëri ndax coach bi dafa wane tout au long deuxième part saison bi que équipe bi banc bi il comptait pas sur eux suñu match ñu ne suñu dernier match de la saison ñu nag Séville wane na ko donc joué nañ match ba quatre vingt wala quatre-vingt-huitième suñu joueur offensif yi nekkuñ ci woon ci dara ku ci mel ni Rashford euh, terewul coach bi da ko fa bàyyi ba quatre-vingt-huitième minute mu doog koy génne loolu dafay wane rek signal bi muy envoyé loolu du du du première fois mu def ko loolu day wane signal bi mu wane rek mooy que banc bi ñi ci nekk taxawul mu am yaakaar si ñoom dafay jàpp ne ñi nekk ci biir terrain bi ñooñu moo leen mën par exemple bu ñu restee ci même cas boobu noonu Rashford moom première partie de bi. c'était le meilleur joueur de la de Manchester United donc xam nga ba sax mun nañu wax meilleur jour Premier League bokk ci meilleur buteur yi nekk meilleur buteur club bi xam nga nekk ci daal nekk ci bu baax a baax a baax instant yooyu noonu mais depuis ñu dem confinement avec mu jógee ci blessure am bi et tout bi mu ñëwaatee gàtt gàtt gàtt defu ko fi. donc ñu doon xaar par exemple coach bi ménager ko teg ko ci banc bi andi James wala mu def ay changement ci kii bi yóbbu Martial gauche. andi Igalo en point yooyu yëpp ñu ko doon xaar mais coach bi defu ci dayan dafa bàyyi Rashford foofu surtout titularisé ko donc loolu jàngat bi ñuy am rek mooy que yenn joueurs yi ci banc bi il compte pas sur eux moo tax ñun dañuy wax ne ñun quatre joueurs offensifs lañu am muy li muy euh, Rashford Greenwood Martial ak Joker bi nga xamante ni mooy Dan James moom moom lañ gis coach bi doon ko doon ko boole ci ensemble boobu noonu yeneen joueurs yi ku ci mel ni Igalo Lingard Mata. Pereira moom xamul gat duma ko lim ñooñu ñooñu dañuy jàpp ne coach bi joxu leen confiance donc ñooñu waruñ compter ci ñoom moo tax doon nañu doon doon na baax man si def ay recrues yu bari bu ko defee coach bi am ay ay ay ay solution yu bari bu ko defee concurrence bu seen am ci équipe bi bu ko defee profondeur de banc am bu ko defee saison bi nga mën a tenir te ñun Manchester côté blessure on n'est pas épargné déjà sax club bi. am na benn partie boo xam ne ñoom ñooy handicapé yi ñoom infirmerie moo leen gënal terrain bi donc ku ci mel ni seen capitaine Phil Jones moom moom moo leen diriger Luke Shaw waxi nopp Eric Bailly même si sax ren ñëwaat na en forme mais man personnellement je lui confiance parce que bay yii lay def chaque année day ñëw ñu naan non bay lii lay revenu en forme mu dugg def 60 minutes blessé waat donc man moom. ba léegi je lui fais pas confiance ay ñoom Tuanzebe bi nga xam ne moom la ñu waxoon ne mooy joker bi ren mooy ñëw xëccoo place bi ak ñoom Lin Lindelof moom saison bi yëpp fee la ko passé infirmerie donc dañoo bari joueurs yoo xamante ni physiquement ils sont pas fiables donc waruñu compter ci ñoom. moo taxoon loolu nañ xaar daal man sa def recrue yu bëree bari parce que identifié woon nañ cinq secteurs ne secteurs yu faible la bi ci njëkkoon mooy latéral gauche bi comme ni ko waxee léegi Luke Shaw physiquement il est te xam naa ne xalifa du d'accord ak man mais offensivement tamit du joueur boo xam ne on peut compter sur lui parce que dañoo jàpp ne Luke Shaw mooy suñu meilleur joueur offensif Luke Shaw saison bi zéro passe décisif la def Luke Shaw boo ko toppee pour nga gis passe décisif am di nga sonn ndax joueur la boo xamante ni il en fait pas beaucoup ci de passe décisif parce que saison ren bi la mi avec zéro ci joueur boo xam ne nee nañ mooy suñu meilleur latéral mooy suñu bi gën a offensif donc là y ñu ñëwaat ci côté physique bi moom il est pas fiable donc war nañ ko wutal backup ki nga xamante ne moom lañ jàppoon ne mooy nekk backup am muy Brandon Williams dafa wane ay limitam surtout deuxième partie de saison bi nga xamante ni Luke Shaw dafa aw moom kese mu nekk fi wane na ay limitam yu bëree bëree bëri moo tax ñu jàppoon nañ ne foofu dañ fa war a recruter défense centrale waroon nañ fa recruter ndax. ki nga xamante ni moom la ñu waxoon ne mooy ñëw nekk euh, joker bi moom saison bi infirmier la ko passé Phil Jones saison infirmier la koy passé ki nga xam ne mooy bay Bailey d'accord ñëw na ci deuxième partie de saison bi en forme même si dafa blessé woon première partie bi mais moom bi mu ñëwee gis nañ ne coach bi def ko confiance lu bari dafa préféré conserver paire Lindelof bi ak Maguire bi donc gisoon nañ ne war nañ jënd beneen defenseur mu ñëw foofu noonu comme ça ñu essayé ko. avec kenn si ñoom pour ñu génn mën a génne benn paire boo xam ne paire bu efficace lay nekk bu ñu ñëwee au niveau du milieu de terrain dañu gis ne profil bu mel ni sentinelle kenn lañ ci am muy Matic te il prend lage l'âge des fois il a fallu ko coach bi daal di koy noppal te saa yi bu ko noppal dañuy gis ne ñi muy dugal foofu ku mel ni Fred wala Magdo il sont pas forcément à l'aise ci post boobu noonu donc ñu jàppoon ne soxla nañ benn milieu de bu ñëw pour supplier ko euh, gis nañ ne foofu tamit équipe bi recruté wu fa donte recruté na nag benn milieu terrain muy Van Lebbik moom daañ ci ñëw léegi bu ñu paree ci ci recrutement yi côté droit bi dañuy gis ne amuñu fa joueur ki nga xamante ne moo fay dépanner ñëpp nee nañu attaquant de pointe la donc coach am nee na il le veut dans l'axe moom nee na il se sent bien dans l'axe donc dañoo jàppoon ne waroon nañu jënd koo xamante ni c'est un excentré capable de jouer à droite parce que suñu problème amoon sër mooy suñu excentré yi am yëpp ils veulent jouer à donc amuñu kenn ku ci bëgg a jouer à droite ñoom ñëpp il veut jouer à gauche même ba ci Dan James il veut jouer à gauche parce que gauche mooy meilleure position pays de Galles ci gauche bi lañ ko yóbbu te il se sent bien là-bas donc loolu dafa nekk un problème ñu gisoon nag ñun ñëpp ñu identifié woon ne Jadon Sancho mooy joueur bi nga xamante ni joueur boo xamante ni moom lañ bëgg foofu noonu mu am des négociations Dortmund fixé le prix à 120 ko wàcc Manchester ne du fay dafa bari du fay prix boobu noonu en plus période de Covid lañ nekk donc y a une crise dossier bi avancé wul mu càng foofu noonu léegi nag ñu gis tamit ne Manchester amuñu beneen solution à Jadon Sancho parce que am na ay rumeurs yu ñu wax mais d' après li ñu seetlu c' est des rumeurs ku mel ni Ismaïla Sarr rumeur la boo xam ne c' est une rumeur infondée léegi daal ba léegi ñuy xaar post boobu noonu mais gisaguñu fa kenn mu des tamit attaquant la pointe bi parce que euh, ki nga xamante ne mooy Anthony Martial même si c' est le meilleur buteur du club dañu tant que attaquant la pointe am lu bari lu ci manqué. tey par exemple si on joue face à une équipe adverse boo xamante ni dafay jouer bas donc buy jouer bas rek regroupé wu seen biir surface rek là day gis ne Martial il est obligé dem ci côté bi parce que mënul jeu de pivot boobu noonu donc loolu moo taxoon ñu doon wax dañu wut benn attaquant boo xam ne c'est un attaquant différent euh, neuf la boo xam ne dafa am différence de profil ak Martial mooy neuf yi nga xamante ni ils sont souvent présents sur la surface mën jeu de noonu parce que loolu moo taxoon ñu wut mais clairement coach bi wane na ne Igalo il n'entre pas dans ses plans moom wane na ko donc tamit moo taxoon ñu bëggoon renforcer foofu noonu léegi bu ñu xoolee nag secteur yooyu yëpp ñu lim amu ci benn secteur buñ ci renforcer donc moo tax loolu xaw ñu tiital pour début saison bi léegi ñu ñëw ci recrue bi nga xamante ni moom la ñu jënd muy Van de Beek Van de Beek ñu dañu gis ne profil la boo xamante ni ñu bari dañu jàpp ne sur le papier dafa am déséquilibre bu ñu leen boolee moom Pogba ak euh, Bruno Fernandes li ko waral dañoo ñuru profil bañ na ko sax ba moom donte mën na jouer trois postes yëpp ci man wante ñaar lañ ko gën a xamee muy relayeur ak milieu offensif te coach am sax muy ole coach bi ko jënd bees nee il va l'utiliser dans la surface adverse mooy offensivement la koy utiliser léegi dañuy gis ne bu fekkente nee loolu am na te loolu mooy meilleur meilleur poste bu mu ko mën a teg ku mel ni Paul Pogba nga bëgg ko défendre loolu day nekk foo ñaari côté yooyu lañ ko lañ gën lañ gën a gisee jeu soit mu nekk milieu relayeur dans l'axe wala mu nekk milieu gauche donc euh, relayeur milieu relayeur gauche donc ñaar yooyu noonu lañ gën a gisee ne Pogba bu fa nekkee fa lay doxee défensivement moom dañ ne Pogba mënu ko ndax buñ ko fa tegee dañuy gis ne y a des lacunes surtout à Manchester. keneen ku mel ni Bruno Fernandes moom tamit ñaari poste lañ ko xamee muy milieu relayeur ak milieu offensif te gëm nañ ne Bruno Fernandes kenn sañu ko changer en tant que milieu offensif ndax bi mu ñëwee. dafa ñëw ren gis nga il est arrivé en janvier saison bi jeex mooy le meilleur joueur de Manchester United moom lañ jox prix meilleur joueur de Manchester United parce que offensivement pratiquement match yu mu joué yëpp il a été décisif soit passe décisif soit but donc kooku noonu gëm nañ ne kenn waru ko bouger fi mu nekk noonu te déjà sax Bruno Fernandes musuñu koo gis mu joué milieu défensif mënu ko joué donc moom soit c'est milieu soit c'est nekkuñu ñoo xamante ne war nañu mën a bokk terrain même si nag loolu ay théorie kese la parce que c'est des grands joueurs amit dafa dépendre système bi nga xamante ni moom la coach bi teg en place coach bi il se pourrait que mu teg système boo xam ne ça les arrange tous les trois ñoo ñoo ñu joxe seen seen ñu ñoom ñoom ñu exploiter seen potentiel bu baax bu ko defee ñu gis milieu bu bu bu doy waar bu dox loolu mën na nekk tamit. moo tax daal fi mu toll nii ñun sax dañu yàkkam saison bi commencé ba ñu xool coach bi nan lay gérer milieu terrain boobu noonu. waaye nag euh, bu ñu sañoon Manchester balaa muy am jafe-jafe ci fin de saison bi ndax blessure yi mën na ko waral baisse de régime yi mën na ko waral mu jënd yeneen joueur ci secteur yooyu nga xamante ni lim nañ ko pour bu ko defee coach bi mën a am ay choix mën a am ay joueurs yoo xamante ni dina mën a compter si ñoom. beneen jàngat bi nga xamante beneen bi nga xamante ni gis nañ ko mooy que coach bi aussi waroon na jéem a fexe xool nu muy gesee gestion d'effectif am parce que ay joueurs yu fret dañu gis ne dañoo soxla enchaînement pour mën a pour mën a affirmer wu bu ñu leen tegee ci ban bi rek dañuy commencer perdre confiance te loolu d'ailleurs du sax Magbo ak Fred mais joueur yëpp la joueur bu nekk da ngay bëgg am temps de jeu pour mën di am gain de confiance pour mën di xam nga di performer chaque match mais bu fekkee joueur da nga ko jël teg ko set match d'affilée ci banc bi boo ko dugalee c'est normal balaa muy retrouver ses repères day metti quoi te gis nañ ne coach bi na gestion d'équipe boobu noonu moom taxu ko cee xarañ. ndax gis nañ nu muy nu muy nu muy nu muy doxalee il joue avec un benn benn benn benn effectif boo xam ne c'est limité te loolu noonu day day day day jouer suñu performance su remplaçant yi donc loolu noonu war na nekk loo xam ne war nañ ko changer waat saison bi di commencer war nañ ko jéem a xool luñ koy définir parce que ren am nañ match yu bari ndax dañuy jouer Ligue des Champions dañuy jouer ñaari këbi dañuy jouer championnat donc coach bi mooy xool rek euh, compétition bu ci nekk nan lay fexe ba mën a tourner effectif bi ñi nga xamante ni ñooy lay joker mu may leen du temps de jeu bu ko defee ñoom tamit ñu wane seen bopp. voilà léegi nag ñu xaar d'ici demain premier match bi nu muy demee après tamit ak tamit 15 jours yi nga xamante ni des na ndax euh, dinañu def ay ay ay ay ay recrues parce que ku mel ni Fabrizio mi ngi wax ne Manchester dina jënd benn latéral gauche ak benn dina jënd benn latéral ak benn excentré. donc ñaar yooyu bu ko amee moom c' est de bon ndax bu ñu amee ku mel ni Jadon Sancho ak ku mel ni Alex Telles donc gis dañuy gis ne sax man moom damay kontaan ci ci ci mercato bi damay jàpp ne def nañ mercato bu baax mais on verra d'ici là donc samedi ñu xool match bi nu muy demee am nañ yaakaar ne du nekk match bu difficile euh, bu fekkee Manchester ni mu terminé woon saison première ligue bi daaw noonu la koy débuté waatee ce sera un match boo xamante ni on pourra le gérer tranquillement même si nag Crystal Palace adversaire la voilà gars yi kon wasalaam.